en assemblée nationale monsieur le ministre garde des Sceaux monsieur le ministre du travail monsieur ministre chargé des ressources humaines sama collègue député yi maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi ngeen àndal ñëpp madame la ministre garde des Sceaux bisu tey bii journée historique la mooy journée boo xam ni le 6 bi nga xamante ni mooy mars 2024 mooy bis bi nga xamante ni ci la Sénégal di booloowaat ci la Sénégal di dajawaat ci la Sénégal di tàmbaliwaat lu bees kon tey journée historique la pour man pour le peuple Sénégal di la remercier bu baax sa taxawaay parce que bokkoon nañ fii assemblée nationale di sant askan wi nga xam ñoo ma tànn indi ma fii te askan woowu mooy waat Touba ak département Mbacké bi sant xalifa général des mourides di ko ñaanal mu yàgg ak mboolem kilifa diine yi madame la ministre loi bii nga xamante ni moom nga indi fii tam nekk loi boo xam dafa jóge ci gouvernement bi muy projet loi pour amnistie man Cheikh Abdou Bara Dolly njiitul parti politique jiite coalition nekkal ci askan bi nekkoon candidat nekk doomu daara nekk chef lycée dinaa wote projet loi bi ngir plus leçon man sëriñ bi nee na ma fépp fu waay man di nekk la ma la sant mooy jàmm loolu laa jox ndigal ndigal boobu noonu moo tax sëriñ Basiiru Abdu Xaadir jox ma kaale gii moom laa yore tey kaale gii day firneel ni sëriñ bi jàmm la bëgg moo ma ko jox ni ma nanga ko ràngoo xam ni mission bi ngay dox mission bu noble la te am nga suñu ndigal kon nag man dinaa ko watee maa ngi sakku sama mbokk yi ñu wate ko parce que lii président la moo ko indi mais du yëfi Macky Sall du yëfi Ousmane Sonko du yëfi Cheikh Abdou Badoli mais yëfi peuple bi la parce que jàpp naa ni am réew bu tolloo fenn fi ñun ñëpp war nañoo mën a maase fàtte jéggalante baalonte dem ci kanam parce que tant ñu ngi wax lu ñaaw tant que ñu ngi wax lu bon tant que ñu ngi déglu ay nit yoo xamante ni tant ay mi ngi am ñu siy dund di dem bitim réew day la xaalis di saaga askan wi nekk ci palaato yi fexe ba jàmm du am tant que ñuy déglu noonu du ñu wati loi bi te man d'accord naa pour ñu wati loi bi pour ñaar raison Ousmane Sonko sama xarit la sama doomu ndey la tey kaso bee mu nekk yéenewuma ko te loi bu jàllee dana génn dem fekk ak njabootam parce que ku watiwu loi bi da nga bañ ko Ousmane Sonko génn ci kaso bi kooku ci asin bi dinaa wat loi bi di wax sama benn boo ko yaakaar Macky fukki at na leen ko lu ko def na ci réew mi nekk bu defee desee ay weer mu bëgg a dem indi leen loi bi ku ko watu da ngaa trahir Macky Sall loolu tamit sama responsable la parce que réew dañ koo war a bokk dañ koo war a waxtaane dañ ko war a séddoo du nekk ba mbir di bëgg a jeex ngay trahir ña nga àndaloon di wàcc di dem feneen koo ko def jaam nga te dañ laa war a trahir comme ñuy trahir jaam d'accorduma aussi ñi nga xam dañ fee nekkoon fukki at ak ñaar ànd ak Macky Sall tey ñu jóge ci Macky Sall ngir seen intérêt bopp ñii sàcc suufu dëkk bi ñii sàcc xaalisu réew mi tey ñu nekk ay candidat bëgg a opposition bi bëgg leen traité président loolu d'accorduma si Sénégal pour tous Sénégal pour tout Sénégal ci kanam jàpp naa ne réew mi c'est pas la première fois loi amnistie am ci réew bii mooy fukkeelu loi amnistie boo xamante ne am na ci réew mi président Ablaye Wade tey bu ma nee nekk président de la république ba def mission def ñaari mandat dañ ko amnistie moo tax mu nekk ko te tooñu toon na amnistie nit taxul yow yaa tooñ képp koo xamante ni am na la nga récolte amnistie boobu defar réew mi day la réew mi parce que ñun président Ablaye Wade mooy suñu mentor mooy suñu royukaay li mu def si ñun xam nañu ko mooy jom sa bopp amuñu benn pression bu ñuy dund man li ma ñor moo réew mi damaa gis sama parti bopp dëkk Touba képp koo xamante ni ñëw nga Touba bëgg Touba ba département bi boo wuxtak man doo ko gagné loolu moom mooy li wér monsieur le madame la ministre boo xoolee loi amnistie li ma ko waxee amnistie loi amnistie boo xamante ni bi ñu koy def Abdou Diouf di ko def booba rebelle yi nga xamante ñoo nekkoon Casamance amul sax jugement pour jàmm la woon te rebelle yooyu am na si ay yoo xamante ni juróom benn fukki nit faat nañ si benn suur loolu lépp ñu muñ ko pour tàpp xol yi dajale boole sàmm kon tey jii képp koo xam ne watu woo loi bi da ngaa trahir peuple bi da ngaa trahir Ousmane Sonko da ngaa trahir Macky Sall da ngaa trahir Sénégal souveraineté nga jox salaamaaleykum wa